mbokk yi ba tey ñu ngi tëngeej ah fekk fii kenn ci champion koo xam ne moom it dafa marqué empreinte ci làmb ñëw fekk ko fii ci tëngeej écurie Lébou gi doomu dàngu nuyu nañ la siyaar waaw mais ñu ngi leen di siyaar ah di siyaar àdduna yëpp ah, fekk la ci sa bis raq muy Gamou mu am bis digganteem ak nga xamante ne mooy Tapha Mbeur yan taxawaay ngeen ci am waaw comme ñu daan masaama ah, avant tout dañ koy ñaanal ndam rek ah parce que combat moom bu desee ay trois semaines moom li fi xaj bareetul donc Gamou moom liggéey na li mu war a liggéey yëpp dañ leen di ñaanal moom ak adversaire bi ak bi yëpp ñëpp nekk si jàmm ba jour ji xam nga incha allah ji ñaanal Gamou Gueye am lu rëy incha allah. mais muy dajeeg xale boo xam ne Tapha Mbeur dafa nekk ci yoon ba pare waa parcelle dañ koo taxaw. waaw ah, mais làmb moom nekk si yoon aussi Gamou dafa nekk ci yoon xam nga làmb moom noonu la quoi ñaari mbër yu nekk si yoon ñooy ñooy ñooy bëre comme li wax rek ñun Gamou mooy suñu lépp mooy suñu frère xam nga moom la ñu dëkkal Tëngéej aussi comme ni parcelle di taxaw Tapha Mbeur ñun noonu la ñuy taxaw aussi Gamou Gueye. Eh. mais Tapha Mbeur ne Gamou dafa yàgg ci yoon moo tax mu bëreeg moom non fii moom yoxe ay ay ay wax la rek njëkk a bëree fi am rek fii moom njëkk a bëree fi am rek wax dëgg yàlla loolu fi am quoi mais gàmmu gay tafaa mbër boo génnee seen i at mënoo wax ne bokkuñu génération mënoo wax loolu quoi donc yooyu moom ay waxu sport la ko eh, waxu sport la rek. mais ñu gisoon mu génnoon fi defoon fi sorte digganteem ak soq. Hmm. am fa ay jafe-jafe. Hmm. est-ce que yéen a ngi bàyyi xel ci loolu amoon ci digganteem ak soq. muy daja xale boo xam ne tam xeexkat la bëreekat la. non bàyyi ñu si xel dara làmb moom comme li nga wax rek soxu du du du du dafa mbër dafa mbër du sox làmb bu nekk ak ni ñu koy préparé ak ni ñu koy mu préparé woon na contre sox suñu borom may soxu ndam aussi gàmmu li ko waraat rek mooy nekkaat si xam nga li ko wax ni moom bii rek moom il n'a pas droit à l'erreur warul warul juum quoi ak lu ci mënte am rek dafa war a am ndam te moom xam na loolu bu baax quoi. Hmm. yaakaar naa bis boo tamit combat spécial bi war a dox ci diggante caat Fora ak Ochot. Hmm. doomu Tëngéej lañ ko tuddee. mu nekkoon fi nekkoon champion ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko xaaral ko àjjana muy Papa Yade numéro 2. waaw Papa Yade jàmbal dañ koy ñaanal fi mu nekk gënal ko fi ah. ak bépp doomu aadama aussi di si profité rek aussi waa di jaale waa kër Ramdaan yëpp xam nga di ko ñaanal aussi moom tamit maanaam desem am na lu mu def si monde làmb ah à euh, euh, particulièrement man am na lu ma def quoi parce que suma adversaire loolu. àdduna moom noonu la rek quoi àdduna moom demal maa ngi ñëw la. waaw moo tax maanaam nañ ko rafetal rek. Mm-hmm. Mm-hmm. mais doomu daangu duñ fi ñëw ba jóge fi nag te waxuñu ci yow sa diggante ki nga xamante ne mooy Tapha Mbeur sa diggante ki nga xamante ne mooy Fils de Balla foo ci toll foo toll ci wàccaay. non instant bi nekkaguñu si dara parce que combat boo xam ne moom def na ay 6 mois. ñun 6 mois bëriwul de. non bëri na si ñun ñun ku ñu xam-xam ne bu doon 1 mois sax pare nañ pour bëre. Mm-hmm. wax dëgg yàlla xam nga ñu ngi si fo yi nii instant bi dañuy fo rek. da ngeen di fo am ku mel ni Fils de Balla di fo. waaw ci loolu lañ toll. mais doomu daangu la ma ko dugal ci Fils de Balla. bëre. bëre waaw. mais sax xam nga fi nga dugg gis nga diggantee mag Gora Sock. waaye man du ma dugg fu ma xamul. waaye ci xoolal bëgguma wax. mais fekk Fils de Balla sorti yi mu def digganteem ak général Malika. waaw yow digganteem ak Gora Sock mais lamb la. lool du dara si lamb man ci ma def. gis naa ko man moom moo war a am bàyyi xel ci man mais man aw ma dara lu may bàyyi xel ci moom. nee na bi rek nga am de. <laughs> waaw bañ àgg ca incha allah. nee xam na sa secret xam na sa lépp tax moo ko. waaw non waaye non loolu ay de man maa gën a xam foofu. Hmm? barke yonent bi maa gën a moom mettiwul yow Tapha yow nu mu fii sa baax la ku la wax lay wax si boy bi moom benn côté la yaakaar te ñun ay doomu lébu lañ. du si def benn côté la yaakaar mooy. maanaam social la yaakaar ci ci ci ci ci làmb te ñun yooyu defuñu dara. Hmm? bu yaakaaree ne yooyu mën nañu yóbbu lu toll nii wala mën nañu yóbbu suñu fi lu toll nii dafay nax boppam. mais mën nañoo xaar seen diggante yéen ñaar lu mel na lépp lu metti rek dina si am incha allah man bëgguma dara lu sedd waxoon naa ko bu dara sedd. ku xam doom daa nga xam ko. waaye dama ne mais mais Fils de Balla xeex ak moom yombut. lu lu sedd moo ko seddal wala déggoo li ma la. man samay mbir sedd lu sedd moo ko seddal. nga war a dajeeg waa Géejawaay. waaye loolu day dara man yaaga naa dajeeg waa Géejawaay ñaata mbër laa bëreel Géejawaay. mais bii combat bi def leen a ñor. waaye Fils de Balla dafa nekk ci yoon. ma sama waa Tëngéej am nga ñoom géejawaay dafa am loo xam ne ñoom wax naa ko dañ ko am ba pare te ñun amuñu ko ñoom dañu dégg roi des arènes yee ñun amaguñu loolu donc ñun ñoo leen ko gën a soxla waa Tëngéej ñoo leen ko gën a soxla lan ngay wax fils de na liggéey te te xam naa ne dina liggéey quoi parce que doomu daa ko bu ko di nga liggéey yee na liggéey man suma liggéey a nekk maa ngi ci foo bi nag ba ci kanam yee damay foo ba ci kanam parce que suma ma teelee liggéey rek day ëpp doomu daangu li ma jaaxal ci yow combat bi ak dayo bi mu am. mais da jël en léger. da nga ko non fi mu nekk nii moom nagu ma ko jël sax au sérieux wax dëgg yàlla dafa teel quoi. dafa teel trop trop trop trop. billaahi dafa teel. man ko bu ñu ko mhm. taxaw di xaar ki nga xamante ne mooy fils may taxaw di xaar may may dem jëli galaat taxaw di xaar. xaaruma dara li nga ne combat bëre non man parce que xam nga lu tax ñun bu kii amul combat keneen am na komba donc ñun ci rythme entraîné la ñuy nekk chaque jour donc kañ amuñu lu ñuy lu ñuy lu ñuy kii quoi. Fadé liggéey la affaire bi liggéey du lébu gi sax parce man nekk ma lébu quoi man songaan gay laa nekk quoi waaw tëngeej ñun ñëpp benn lañ ah. waaw Pikine pour cent ñee pour cent. non ñun ay ñun ay mbokk lañ. ñun ay mbokk lañ. ñun ay mbokk lañ quoi waaw. Fils ko bëri sax. ayca kontaan nañ ci yow. waaw di sant ñëpp. di gërëm ñëpp di ñaanal gàmmu ndam.